bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa allamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5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 saa su ne mu duñu dottil xéewal ya nekk fa moom ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen moo ñu ne uduuni astajib lakum ñaan leen ma sàkku leen fa man la ngeen tele ma defal leen ko ñaan leen ma la ngeen bëgg yépp ma defal leen ko kon ñu ngi tàllal loxo yàlla di ko ne allahumma anzil alayna alxaysa wala tajcalna min alqaanitin ñu di ko ñaan buur yàlla yal nañu yàlla wàccel taw te ñu boole ci ñi nga xamante ne dañuy dund bekkoor yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu wàccel ndoxu taw yàlla nga ñu nandal ndoxu taw te nga bañ ñoo boole ci ñuy dund bekkoor ñu di ñaan yàlla suñu boroom yàlla nañu yàlla may nawetuk njàmm yàlla ñu yàlla may taw jàmm amin ya rabbal alamin bur yàlla mën na ko sañ na ko yàlla ko yàlla defal ñu ngi masaw mboolem ña ci ndoxu taw waaye ñu ngi jaajëfal kilifa ya jël la leen yàlla dënk ñu gëstu si njaboot yu loru ci ndoxu taw bi yal na leen ko yàlla defal xasanaat fil mizaan autorité ya taxawee njaboot yi yu mel ni lañ leen taxawee ñoom it yal na leen yàlla fay seen taxawaay yàlla bu jëf sànku yal leen fi yàlla yàggal ñuy taxawee njaboot ñi ci anam bi ni mel buur yàlla sañ na ko mën na ko yal na ko buur yàlla defe ni amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne bokk na ci xéewal ya yàlla buur bi tabaraka wa di xéewalal doomu aadama xewal yooyu kenn namunu ko lim kenn mënu koo xayma waaye dafa fekk ne rek waaye gom yàlla de bu ko yàlla tegee nattu bi ni mel du ñàkk kenn ku nekk na nga war a taxawee jëmm jooju yàlla teg nattu wi ni mel nga taxawee ko ci côté bila la yàlla nattoo ne loo noonu nga war a taxawee jëmm jooju dañ ne ñàkkut ne ay way gëm yàlla lañu dafa fekk ne rekk képp ku yàlla dogal ci yow buur yàlla andi nattoom ju mel ni mu nattu la lenn ci xeetu nattu yamuy nattu ci ko gëm dañ ne du ñàkk mu am ñeneen ñi nga xamante ne dinañu taxawee taxawaay ju mucc ayib ci wetu ki yàlla teg nattu wi ña yàlla dënk astuut ñoom dinañu làmba seeni poos jil la leen yàlla wërsëgal ñu tàbbil ko ci ñooñu yàlla teg natt wi ni lu mel ni suñu kilifa diine yi ni ñu taxawee ak lu mel ni suñu kilifa àddina yi nañu taxawe waaye képp ku yàlla nattoo ngay wax ci diine tamit war ngaa war a mën a taxawu ci wutu ñaloru nga masawu leen ci anam ba ñu nekkee ndegem loolu lañu ñu yàlla natoo ñu ñu ngi taxawee seen wet ci lañu ñu yàlla man loo ci ay kàddu ñaanal leen yàlla yàlla def coono bi mu def mu nekk ci ñoom jéggalaa koor yàlla may programme ay mbir mu di ko doxalee comme num ko soobe yàlla ma teg loolu ñu nekke yal na buur yàlla wommat boroom barke yi làmb seeni poos làmb seeni gafaga am lu am solo lañu ñu génnee jëmmali ci ña yàlla nattoo nattu wi ba tax na bokk na ci lañu bëgga a waxtaan ak mbokk ñooñu yàlla teg nattu wi ni gannaaw buñ leen massaw ñaanal leen yàlla yan na ko yàlla def jéggalaakoor bay faxas seen bàkkaar waaye ñu xam ne yenentu ba yàlla yónni ci askan bi ci xeet wi di ar rasulul mustafa salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi moo ñu wax ci maana al xadis ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mafatixul xayb xamsa mafatixul xayb xamsa allah laa yaclamu maa fi gadan illa allah wala yaclamu maa taxiidu l arxamu illa allah wala yaclamu mata yaati lmataru ahadun illa allah wala yadri nafsun bi ayi ardin tamuut wala yaclamu mata taqumu saatun illa allah sayhul buxaari mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla doyloo ci xeet wi ka yàlla doyloo ci mbindaafuunam yi di afdalul xalq di sayyidil awwalina wa imaamil mursalin nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko ci jaamaami mu ne ko wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni bi ma ci sama mbindaafoon du lenn lu dul nga nekkal leen xéewal ak jàmm ñeel leen noonu moo ñu ne yàlla buur bi tabaaraka wa xamal na ko ne caabi kumpa juróom lañu te kenn xamu ko ku moom yàlla caabi kumpa caabi luyu fàddu yi juróomi magasin ya nga xamante kumpa tëj leen ci magasin yooyu yonent bi nee na caabi wi kenn yor ko kudul ci yàlla ku ko fii géema yore tamit dangay nax sa bopp rek ndax yonent ba ne mafatihul xaybi xamsa magasin wu kumpa fa yàlla denc kumpa yi juróomi magasin ya yàlla installé dugal fa kumpa buñ ne kumpa nag mooy la yonent bi bëgg a wax ni sallallahu alayhi wa te yàlla xamal ko ko yonent bi nee caabi magasin kumpa yi juróom lañu te kenn xamoo ko ku dul yàlla nga moo tax mu ne laa yaalamuha illa allah amul kenn ku ko xam laa yaalamuha illa allah mbokk yi buñ ko naree commentaire dañ ne malaaka xamu ko jinne xamu ko doomu aadama xamu ko yenenti xamu ko waliwu xamu ko xutbu xamu ko yàlla moo ko xam subhaanahu wa te yenent bi moo ñu wax ne caabi magasin wu kumpa yi yàllaa ko yore te magasin yooyu juróom lañu kenn xamul seeni caabi ba xam la fa ne caabi magasin ba nga xamul kon noo mën a xamee la nekk ci magasin bi ki koy géema décortiquer da ngay nax sa bopp da ngay perteloo sa bopp temps moo ne buur yàlla def ñu ne mafatixul xayba xamsa laa yaalamuha illa allah caabi magasin yu kumpa yi juróom lañu te kenn xamu ko nag ku dut yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu bu ci jiitu mooy laa yaalamu maa fi gadan illa allah lay xew ëllëg amul kenn ku ko xam ku dul yàlla subhaanahu wa taala lépp lay xew ëllëg amul kenn ku ko xam ku dul buur yàlla tabaraka wa taala ñaareel bi mu ne ñu wala yaclamu mata yaati l matar ahadun illa amul kenn ku xam kañ la ndoxu taw di sóob ci suuf si ku dut yàlla mbokk yi fii buñ fi taxawee tuuti dinañu gis ne amul kenn ku ñu mën a wax ne ndoxu taw bay sóob ci suuf si ku dut léegi-léegi ñu gis waa météo ñëw andi loo xamante ni dina méngoo lañu wax waaye ci coobare yàlla loolu yàlla da leen di xettali ngir seen xam-xam mën a jébbi waaye ndoxu taw bay njëriñ ndoxu taw bay lore loolu xam-xam bi nekkut seeni loxo yàllaa ko xam buur bi tabaraka liitaru ndox bay wàcc bokkul ak milimètre ba ñuy natt ñoom ndoxu taw bi na muy wàccee bay tuur ci géej gi bay toq ci gàncax yi ndoxu taw bay toq ci garab yi ak yay toq ci montagne yi loolu météo mënu koo ndax seeni yoon nekku ci loolu seen xam-xam lottu na ci waaw kon la météo di xam mooy ndoxu taw bay wadd bay daanu ci lañu gis walla lañu xam waaye ndoxu taw bay meññal dugub ndoxu taw bay meññeel gerte walla bay meññaloo ceeb loolu météo mënu koo xam ndax yoonam nekku ci ba ndox bi di ñëw tamit na muy ñëwee bu ñëwee ña ciy njëriñu bu ñëwee ña ciy loru mën na xiin bi ñëpp yaakaar ne day taw mu jékki-jékki fomm mën na jékki-jékki du xiin mu ne sóob loolu yëpp ci dogalu yàlla la buur bi tabaraka wa moo tax mu ne wala yaalamu déet nit di xam mata yaatil matar kañ la ndoxu taw bi di sóob waaw ñun moom séntu lañ ci xam ak gis ne jikki jikki na rekk rek nee faax loolu lañ ci xam te loolu lañ ci am waaye namu ak kañ la ak numu loolu yàlla xam-xam-xam bi ni mel képp ku ciy géema suubu di ko xam tamit dangay ngay sonal sa bopp wala di perteloo sa temps di perteloo sa bopp temps ba tax na mu ne wala yaalamu déet kenn di xam mata yatil matar kañ la ndoxu taw bi di suub bu soobee tamit nu muy melak bu meloo nuunu ana ñu siy njëriñu ana ñu siy loru après ka siy njëriñu bu si njëriñoo ba pare lañuy commentaire taw bi ni mu nekkee wala ki ci loru bu ci loroo ba noppi lañuy commentaire na ndoxu taw bi yàqee ki ci loru waaye laata ndoxu taw bi di ñëw ku ci commentaire ki ci géem a def ay commentaire loolu commentaire boobu mën naa juuwantloo mën naa bañ doon kom noo ko waxee gannaaw bu ndoxu taw bi wàccee kon yonent bi nee na amul kenn ku fi nekk ki xam kañ la taw bi di ñëw ak bu ñëwee nu ñëwee ak yar circonstance lay ñëwee beneen bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wala yaalamu mata maa taxiidul arham illa allah la nga xamante ne mooy la biir du ëmb kenn xamu ko ku dut yàlla biir la muy ëmb ci xeetu wërsëg ya yàlla di feeñal jamono kenn xamu ko soxna si mën naa ëmb waaye kenn du xam lu mu ëmb science décortiqué na découvrir na la soxna si ëmb mbindinu góor la moo xam mbindinu jigéen la moo xam science jot naa découvrir loolu ci coobare borom bi waaye ba xam kooku day doon ku gudd fan ba xam day doon ku gàtt fan science mënuta découvrir loolu science mënuta découvrir ba xam kii day bëri wërsëg wala du bëri wërsëg science mënut a découvrir loolu science mënut a découvrir ne ba xam day doon ku texe walla ku texe di science mënut a loolu kon ba yonentu bi ne wala yaalamu maa taxiidul arxam illa allah loolu mooy li am kenn xamul la biir di ëmb ca la mu denc ca la fa yàlla denc kenn xamu ko ku dul ka fa waaye lay joto meññ tamit yàllaa xam kii day mat ba mu gene si àddina waaye yàllaa xam tamit ni kii du matale falay jaar tabbi géej loolu yëpp yàllaa ko xam ci xam-xamam subhaanahu wa ka war a si àddina bu ñëwee na muy mel yàllaa xam melokaan woowu ka génn si àddina bu ñëwee lay doon wërsëgam yàllaa xam-xam-xam woowu moo tax yonent bi ne walaa yaalamu deet nit di xam maa taxiidul arxaam la biir di ëmb ci la war a feeñ jamono ne biir nag mën nañ see andi commentaire bu ndaw rek biiru mala yow mi moom gétt sa géttum xar sa xar bu ëmb xamoo bu juree lamuy muy jur yow mi yore géttum nag nag bu jigéen ba nekk ci gétt gi mu ëmb bi diis gën bu juree xamoo la muy jur waaye noonu lañ koy yëkkati tuuti rekk bi ñu ñëw ci suñu jamono doomu aadama ci monde nit ñu gis ne yàlla ñu yàlla jéggal suñu yaay ñu baax ñi saa yi ñu tolloo diggante loolu leen yàlla dénk bés bu ñuy tàqale ko ndénkaane boobu na muy mel kenn xamu ko ñoom mi ko yàlla dénk xamuñu ko yow mi doon sabab bi xamoo ko médecin mbay saytu wérgu yaram bi tamit am na fa ko yàlla yemale ci xam-xamam la mu xam la mun a tegtal la mu xam la mën a si ndikku la mu xam la mën joxoñ la mu xam la mën a wax waaye loo ko yàlla xamalut nag munu ci wax dara ba dara booloo jeex ndax ndënkaane boobu noonu yàlla dënk soxna si mu nara a taqale moom loolu bu dee day doon kay gudd fan médecin bi xamu ci dara bu dee day doon ku texe médecin bi xamu ci dara bu dee day doon ku bari wërsëg médecin bi xamu ci dara bu dee du doon ci ñett yiñ leen limal nii dara médecin bi xamu ci leen kon xam-xam woowu yàllaa ko xam buur bi tabaraka wa taala ba léegi yonent bi nañu sallallahu alayhi wa sallam wala tadri bi ay ardin tamut amul benn bakken ba xam keroog buy tàqale koog dund bi fa mu koy fekk ndax yéenaa ngi tukki di dem ak a ñëw ndax yéenaa ngi déplacé wu di dem ak a ñëw kon kenn xamul fa la dee di dabe kenn xamul fa la dee di la fekk kenn xamul fooy dajeg malakul mawt moo tax mu ne wala tadri deet nit di xam nafsun benn bakken bi ay ardin tamut ci ban suuf lay faatoo kenn xamut fuy doon sa bàmmeel ci territoire suuf si waaye yonent bi jeexale ci maana xadis bi mu ne ñu wala yaalamu mata taqumu saa waaye kenn xamul kañ la bés pénc di taxaw kañ la bés pénc di taxaw nag kenn xamu ko ci mbindaafoonu yàlla kon ñu gis ne buur yàlla tabaraka wa taala ma yónni bi sallallahu alayhi wa moo ko xamal lii nga xamante ne mooy la fi nekk kenn xamul kañ la bés penc di taxaw waaye kenn xamul kañ la di dikk waaye kenn xamul bés penc kañ la ko buur yàlla tabaraka wa di taxawal mu doon ay mu doon ay ay melokaan yoo xamante ne keneen ku dut yàlla buur bi tabaraka wa sañoo wax ne lii mooy li am walla lii mooy li war a mën a nekk kon mbokk yi ñu gis ne buur yàlla tabaraka wa taala feddali na xadisi yonent bi ci suuratul sajda suuratul sajda bu ñu demee xool ci aaya bu mujj dinañu fa gis buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu baaxee la nga xamante ne mooy wala suratu luqmaan bu ñu demee xool ca suratu luqmaan dinañu gis buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu fa baaxee la nga xamante ne mooy la mu tegtal ni yenentu bi baaxee ñu ko sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee xool suratu luqmaan dinañu gis buur yàlla tabaraka wa mu di ñu avertir yéen doomu aadama yi bur yàlla mu ngi nii di ñu woo waaw yaa ayyuhan naasu ittaqu rabbakum yéen doomu aadama yi nangeen ragal seen borom ngeen suuraale seen borom wax saw te ngeen bàyyi xel ngeen ragal yow man bés bi nga xamante ne laa yajzi déet muy njëriñ waalidun doom an waladihi ci wijuram woyjur du njëriñ dara doomam wala mawluudun huwa jaazin an waalidihi shay'an deet doom di njëriñ woyjuram ci dara na ngeen bàyyi xel yàlla ci seen nekkin te ngeen suuraale bés bi nga xamante ne woyjur du njëriñ doomam dara waaye doom du njëriñ woyjuram dara waaw yàlla ne nag li ma leen avertir nii dafa am message ba ma leen bëgg a jàllale xam leen ne inna waadallahi xaqun xam leen ne nag euh, rendez-vous ba leen yàlla jox dëgg la de bés penc mu ngi nii di ñëw yàlla nee na mu ngi nii fixé naa ko date naa ko du jaas dina ñëw inna waadallahi dëxalante ba ma dëxalante ki yéen doomu aadama yi xaqun dëgg du naxee mbay de kon na ngeen bàyyi xel falaa taxurrannakumul xayaata dunia àddina bu mu leen wor ba ngeen jël la ma leen santa ngeen takk teg fee bañ kaa jëfe àdduna bu mu leen wor ci looloo de waaye nag maa ngi ni di leen moytandikuloo tamit wala yaxurannakum billahi l garuur kay wor nit ñi ca yàlla kooku tamit bu mu leen wor de seytaane nga xamante ne léeg mu xalaat loola rafetal la say jëf anam bi nga xamante ne da ngay defe ne yaa nekk ci dëgg or ko du mm, mm, du noonu seytaane moo la rafetal say jëf seytaane bu mu leen rafetal seen jëf ba ngeen waru fa yàlla de yàlla ne nag message bi ma leen bëgg a jox moom mi ngoo xadis bañ leen bëgg a waxtaanal nii moo méngoog xadis bañ leen doon waxtaanal sànq ci ginnaaw bur yàlla ne ñu inna allaha naka yàlla indahu fa moom la nekk ilmu saa xam-xamu bés pénc wa yunazilul gaysa xam-xamu ndox way wàcc yàllaa ka xam wa yaalamu moom yàlla mooy ki xam maa fil arxaam la nekk ci biiru jigéen ba ëmb moo xam doomu aadama la moo xam mala la buur yàlla ne xam-xam bi maa ko yore wa ma tadri nafsun déet nit di xam maaza taksibu gadan la muy faggu ëllëg jii di ñëw nii wala ëllëg bés pénc kenn xamut loo fay fekk waaw bu kenn naagu ca la nga nekk ba kenn xeeb ca la nga nekk tamit waaw ne kenn ku nekk yaakaar dundee yaakaar waaw yërmande yàlla yàlla ne wa ma tadri nafsun déet nit di xam maaza taksibu gadan la ngay fàggu ëllëg ëllëg bu jege bi kenn xamut lay xew foofu waaye ëllëg ba nekk bés pénc kenn xamut loo fay fekk buur yàlla ne wa ma tadri nafsun déet benn bakken di xam bi ay ardinta tamuud ban suuf la ko dee fekk kenn xamul ban trottoiru suuf ngay génnee àddina buur yàlla ne li fi nekk kañ may buur bi nga xamante ne ma rangoo ñaari garaat ba aaya bi jeexee buur yàlla moo rangoo garaat yooyu moo tax mu ne inna allaha naka yàlla alimun moo xam lam leen wax ni xabiir moo supervisé tegtal yam leen tegtal nii lañu yàlla wax ci aaya bi nag yàlla nee na alimun yàlla mooy ki xam lam ñu wax ci aaya yi waaye xabiir yàlla mooy ki supervisé lam ñu wax ci aaya yi kon keneen ku dul ci yàlla xamoo lii keneen ku dul ci yàlla sa xam-xam peeguti yi kon noonu la ñuy déggee maanaa aaya bi su ko defee ñu bàyyi xel ne yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo fi nekk di yàlla waaye moo fi nekk tamit di ñu baaxee la nga xamante ne mooy suñu nekkin su ko defee képp koo xamante ne buur yàlla namm na ci yow la nga xamante ne mooy loraange yi nga xamante ne ci coobareem ak ci nameelam la amee waaye nañ gis ne beneen côté bi ndox daf di la nga xamante ne buur yàlla moo ñu ko wàcceel ngir ñu di si war a mën a faggu la nga xamante ne mooy lañuy ñuy njëriñ ci la nga xamante ne dafa bokk ci suñu dundin waaye dafa bokk loo xamante ne moo ñuy may ñu am dund bu naat kon mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëgsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy war a jébbal béréb bi ñay tas xibaar ci nasaraan noo ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yal na ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet waaye dañ ci jëfee la sa gën a jekk amin ya rabbal alamin ñu di ñaan moom buur yàlla tabaraka wa taala allahumma sayyiban naafian allahumma sayyiban naafian allahumma sayyiban naafian yal nañu yàlla dottil nawetum jàmm yal nañu yàlla may ndox ba ñuy njëriñ yal nañu yàlla may ndox bi nga xamante ne day doon ndox ba ñuy meññal suñuy mbay waaye mu doon ndox bi nga xamante ne dinañ ci war a mën a am njëriñ ba tax na ñu di ko ne allahumma andil alayna alxaysa wala tajalna min alqanitin yàlla ñu yàlla may ndox yàlla bu ñu yàlla boole ci ñuy dund bekkoor amin ya rabbal alamin ndax ndoxu taw bi de dali xéewal boo xamante ne ñun ak suñu bàyyi may ñoo ci bokku di ci njëriñu ba tax na du ñàkk ñuy ñaan bur yàlla yan na yàlla teggil ña nga xamante ni dañoo loru ci ndox wi yan leen yàlla teggil coono bi waaye yan na ko yàlla wuutale banneex yan na ko yàlla def jéggalaa bala bay raxas seen bàkkaar yi amin yaa rabbal alamin seen fa loxo tamit yan leen yàlla fay yan leen yàlla yàggal suñuy kanam amin yaa rabbal allahumma ya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 dikril hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh